Euh, formation bi ak euh, démarche yi ñu entamé li ko waral mo ni ma ko waxé légui dafa am fu ñu sukkandiku fu ñu jógee li ñu jógee mooy lan dañ tok di xalaat Sénéfa biñ ko créé ba légui 59 ans pratiquement taux de fréquentation bi c'est inférieur à 10%. biñ xalaté si lolu de chaque année ñi fi ñëw di def ci formation Bernard, disons le ministère de la fonction publique le reste c'est des structures privées ou d'autres qui viennent et euh, qui sont abritées donc problème majeur, am majeur malgré l'infidèle pour fi investissement le gouvernement bi état Il a dépasser donc retard actuellement il faut maintenant ñu jéem a waxtaan les partenaires jéem a waxtaan ak ñi nga xam ne ñëpp dugal nañ seen loxo ñëpp aussi seen xel ak seen pour ñu repositionner encore Sénéfa naka lañ redynamiser Sénéfa pour def ko centre boo centre de référence Le centre Sénégal bu fi structure yu bëri di def yenn formation yi parce que je si dañuy dem dans le privé ni di dem dans les hôtels alors que le mi c'est pour l'État ñu bàyyi ko fi donc loolu moo waral ñu jéem a gëstu pour jéem a vraiment naka lañ a def pour repositionner le Sénéfa pour que le Sénéfa soit vraiment un centre de référence en matière de formation